nasru muminin bi xettali jullit yi ci mbooleem seeni i jafe-jafe nasru muminin garab ak gàncax andi leen xéewal gu rëy muy ay xeetu jaaro yu doy waar lool te li ci gën a yéeme mooy ku nekk da ngay xoll sa tabian ba xam sa nature lan la ñu door laa jox nag jaaro bi dëppoo ak yow maanaam jaaro bi dëppoo ak sa tabian te day ànd ak cuuraayam ak parfum am gaaw lool efficace lool te mboolem ñi utiliser jaaro yi nee nañu da takk rek tàmbale gis résultat te njëriñ li mooy daf lay may wërsëg ubbeeku bayre ak kaaraange gu mat sëkk ngir am ci jaaro yi lu jiitu da ngay xam sa tabian maanaam sa nature lan la ba pare ñu door laa jox jaaro bi dëppoo ak yow Nasrul niin garab ak gàncax di yëgal mbooleem ay clientam ñi nga xam ne dañoo bëgg xam seen tabian maanaam seen nature seen couleur seen bis ak li gën ci ñoom daw leen gaaw woote ci numéro téléphone bi 78 445 04 79 ñu xoolal la say mbir ba noppi jox la jaaro bi gën ci yow Nasru Mominin garab ak gàncax di leen jox ay produit yu baax 100 cent naturel ci wàllu néew kàttan ak ñu tuuti bëgg am yaram ak ñi am yaram bëgg a wàññeeku Nasru Mominin garab ak gàncax mooy xettalu jullit yi di saafara seen jàngoro. ci noonu nag moor bi nga xam ne mooy borom këru Mariam ak Kiné jaaxle woon na lool jamono bi nga xamee ne liggéey bi nekkoon ci yaramam dëñ na. maanaam liggéey bu bon bi ñu ko defoon deñ na te itam sunguf soosu nga xam ne moom la Móodu joxoon Mareem mu jox ko boroom këram mu def ko ci ndox mi borom këram sangoo moom mu sangu ci dindi na lépp loo xam ne fekkoon na ko ci ñoom ci seen yaram ci ay àndandoor ak ay yàq-yàq yu bon lépp dañ na nga xam ne léegi boo xoolee dañoo mel ni daal ñu judduwaat bees ci noonu nag la ki nga xam ne mooy moor jaaxle lool nag ba xel mi ñëwee jëmm ji dellu dellusiwaat mu xalaat ni waaw man lan moo tax ma takk kinne kinne lan moo tax ma takk ko loolu daal jaaxaloon na ko lool lan moo ko ci dugal xel mi nag xalaat ne kenn dugalu ko ci ku dul rakkam ji nga xam ne mooy faatu mu mere faatu lool jëppi ko lool nag noonu moor di toog ci néegu ki nga xam ne mooy mareem du fa jug benn yoon boole kook nag jooy yu mitti nag mareem di ko defal ne ko muñal lépp loo xam ne lu la naqari la na ngay xam ne loolu dafa dëppook coobari suñu borom waaye tey jii bu neexoon suñu borom dara du la naqari tey dara du la dal lépp suñu borom moo ko dogal noonu moor daldi wax Marème ne ko dama fàttali ko fan yi ñu weesu ay bis yi ñu weesu ak li ko jiitu yëpp ay jëf yu ñaaw yu salte yu ma doon def sama diggante ak yow daan naa wéet di wax ci yow lu ñaaw man ak sama soxna ak sama rakk ji di faatu te loolu yëpp xaw ma woon lu tax ma doon ko def fàttaliku naa daal ay ñaaw-ñaaw yoo xam ne doxoon na sama diggante yow lan moo tax ma def ko ndax yow ji nga ma loolu ndax war naa laa def loolu sama papa moo nekk ci dëgg waruma woon takk soxna ndax yow doy nga ma sëkk man nga ma aaw mën nga ma ñaareel ñàkk am doom du dara loolu yëpp sunu borom moo ko dogal am na ñoo xam ne sëy nañ ba faatu te amuñu doom kon man lan ma war a dugal ci lii tàmbali nag di réycu réccu gu tar nag boole ko jooy yu waaye Marème ndeysaan ak ay jigéen ju baax te am yërmande ndax Marème dafa defal boroom këram bii di Mor. ko yow sama boroom kër boo defee nii yow miy góor ana man mi jigéen nan laa war a def góor dafa baaxoo di muñ jigéen day muñ góor day muñ waaye nag góor moom mooy ki nga xam ne moo war a dékku bépp métit ak coono muñ koo muñ gu mat sëkk. kon lii yëpp jàppal ne loo xam ne sunu borom moo ko bindoon sama diggante ak yow te soxna sii di kinne fii mu toll nii yërmaande nga war a am ci moom wala waroo am ci moom benn mébét bu ñaaw li ma lay ñaan nag su dee bëgg nga ma bëgg lu ma neex kinne mii na nga ko téye def ko comme ni ma def na nga doon moom nga wéyal ko uuf ko yor ko téye ko téye bu rafet ba suñu mee ko jàmm su ko mee jàmm ñu dinañ toog waxtaan liggante bi continuer waaye bu ko fase mukk ndax day mel ni man maa ci dox wala ma wax ci te araam ndax man yéenewuma kenn lu bon au moom moo nekkoon di ma def noonu di ma xeex waaye man vraiment yéenewuma ko lu bon bi nga may tàggu ne ma da bëgg takk ñaareel su ma wóoree ne soxna si su ñëwee ku baax lay doon koo xam ne day ànd ak man ñu ànd nekk sa ginnaaw di la jàppale konoon du ma ko bañ benn yoon ndax lu la neex ak sa bonheur moo ma jëlee sama kër baay andi ma fi waaye nag dama doon ragal rek ki nga takk nekk keneen koo xam ne daal ku doy waar lay doon comme ni mu amee ndax lu jiitu nga koy takk doon naa gis mu fii ñëw ak faatu doon naa gis itam niñ doon doxalee loolu moo taxoon métti ma naqari ma. waaye nag li ma la mën a wax daal mooy kii daal na ko téye nga jàpp ko may danaa la ci jàppale bi mu waxee daal ba convaincre borom këram ki nga xam ne mooy Mor daal di nangoo continuer sëyam ak ki nga xam ne mooy Kiné ndax conseil yooyu ko aawam bi di Marème jox waaye bu dul woon ak Marème day fase Kiné noonu nag mu baalu baayam àq lool jooy sukk coronam baay ji ne ko baal naa la sama doom lii rek laa la yéene woon sarak ki ne na nga waxtaan ak moom sarak euh, faatu itam nanga waxtaan ak moom ndax dafa réer rek réer rek moo ko jàpp waaye man duma ma leen du ma seen noonu te du ma leen bañ ndax seen yaay sonn na ci man te lu nekk ci lu baax defal na ma ko kon tey jii lim lim def ci lu baax liggéey ko fi ba suñu borom jëlee ko fi kon lu baax rek laa ko war a fayee noonu itam la bi moom it daal di am kontaan lool bu mu gisee doomam jooju di Mor changé waaye Marème moom loolu yëpp xam na ne kon def-def boobu la ko Mori doon wax. yàq-yàq yooyu nekkoon seen diggante mooy comportement bu ñaaw bi nga xam ne boroom këram amoon na ko doon ko doxalee ak moom ak yi fi xew yépp nag ba takk gi mu takk ñaareel mel ni ku àndut ak sagoom kon xam na ne loolu yépp du hasard kon li ko Mori waxoon xam na ne dëgg la noonu itam ndeysaan mu am kontaan loolu ak xol bu sedd daal di wax ci xelam ne cey nit nit de ndekete da nga koy gis muy dem rek te xamoo ko ma dem Mori ak mbokkam yii di fi ñëw di fi ndékkisee di waxtaan ak man. ma ubbi leen sama bopp jàpp leen ndax man noonu mooy sama habitude fu nit mën a jugee rek ñëw dama koy jàppee comme sama bopp waaye ndekete daal nit nit ay garabam cey doomu aadama nit daal dee seen muy dem rek waaye bu ko xeeb benn yoon ndax boroom xam daf ko waxoon nee na kenn ci nit ñi ñàkkul njëriñ koo xamul noo koy jëriñoo moo am waaye nit ku wéradi am wéradi xel sax nekk ci mbedd mi jàppal ne am na lu la mën a jëriñ xëy na njëriñ nga moo agseegul ci noonu nag mareem ak moor ak ki nga xam ne mooy ne ñu wëyal seen nekkin jamono yooyu faatu dafa génnoon demoon ci ab dëkk bu sori doon wut ay bagages yi nga xam ne moom lay jaay ndax des fois day def ay yaxantu gëjoon naa jaay nag waaye jamono yi yàlla daf ko cay xiir mu ne day yaxantu ngir wut ay bagages xam nga rek faatu dafa bëri ay dugg-dugg waaye bi mu ñibbisee gis na changement gu rëy ci kër gi ndax li mu gis mooy dafa jubali ci néeg soxna soosu di kinne indi bagaas yi di ko waaye fekk kinne di jooy jooy metti noonu faatu daal di sànni bagaas yi daal di summi daal di ci kaw lal bi toog ci wetu kinne lëng ko daal ne ko sama rakk sama jabar sama lépp ah boo defee nii dinaa jaaxle de ana lan moo xew loolu dal sa biir bi day metti wala lan moo dal. jamono yooyu soxna sii di kinne ëmbam bi daanaka ñor xomm maanaam daal. semaine bi moom du ko génn te amul doom moo ngi ëmb ba diis boo ne ko jooyu métti na ko noonu la ko faatu laajee ne ko waaw ana lan moo xew ana jooyu métti yi lu ko waral noonu ki na daal di koy tontu ne ko lu kenn ko dul moor bi mu ne du kenn ko dul moor faatu dafa daal di jug toogaat ne ko lu xew lan moo dal moor mu ne ko moor dara dalu ko dafa changé soppeeku soppeeku bu jéggi dayoo moor xàmmeetuma ko fu mu toll daf may daw su may wax ak moom du ma faale sama néeg bi bu fi gëjee dugg ak léegi mat na ñaari fan moom daal léegi ci ki nga xam ne mooy mareem ci aaw bi rek la nekk moom daal wax ko daal moom ki ne daal di expliquer ki nga xam ne mooy faatu lépp loo xam ne xew na ci ginnaawam faatu nag mel ni ci ay gént la nekk nag daal di jug taxaw ne waaw loolu nan la mën a nekkee moor nan la mën a changer nii à daal di daw rek jubali ci néeg mareem fekk fa moor ak mareem ñu toog di waxtaan di ree noonu faatu ci ñàkk yaram ak ñàkk tegginam mu taxaw jàkkaarloo ñoom di leen xool daal na ko yow moor yow lan moo tax sa soxna si ëmb ba toll toll ci état bi mu toll nii sori lool nga ñëw naan danga koy toroxal lu tax nga koy toroxal lu tax doo dugg néegam nga nekk ci néeg baadoola bi nga xam ne dafa jaasir dof bi bi waxee loolu rek ki nga xam ne mooy moor daal di wàcc ci lal bi rek mbéj ko faatu daal di daanu noonu moor daal di jóg rek daal di wéq faatu Marème daw téye Mor ndax su ko bàyyi woon dana gaañ faatu ndax Mor la nekk ci xolam ci naqar ak mer gu tar goo xam ne ëmbal na ko faatu dafa bari woon lool noonu faatu di yuuxu nag di jooy ak làmmiñam wu réew wi mel ni dañ koo rey jamono yooyu kinne dégg na yuuxu faatu yi xam na ne dañ koy dóor mu yokk ay jooyam moom kinne ak njàqareem nag soppeeku gi daal xamut lan moo ko waral waaye xel mi moo gàtt rek waroon naa xam ne diggante mag moor ab def-def la te def-def bu nekk ab def-def mën na koo dindi loolu la xel mi fàtte woon ndeysaan ci noonu nag ki nga xam ne mooy moor daal di wax faatu ne ko yow dama laa bàyyi àdduna ak alaxira nit ku bon ki nga doon yow wéer na ma ne ma li taxoon ma taqali kook sama sago ba takk soxna si di kinne yooyu yëpp sa loxo génn ci li ma naqar yëpp ak yi bitis yi ma fi doon def yëpp nga xam ne lu ma rëccu la lu ma regretté la sa loxo ngi ci biir waaye nag na nga xam ne man ak yow jeex na c'est fini ma des ak ndey waaye yow moom pare naa ci yow yow moom bu sama yaay dekki woon dana la day jure dootu la nangoo jurati nekku ku bon ki nga doon nun la moor daal di mer nag ndeysaan daal di génn néeg bi génn kër gi dem doxi ay yitteem mareem nekk ci néeg bi tànk ndox ñoo indil ko faatu ngir jox ko ko faatu fi mu sëgg di jooy mu fel ndox mi daal di génn dem toog ci biti di jooy wéet na lool ndax kinne mi mu am ci kër gi kinne ma nga ca néeg ba biiram bi diis na gann mënta génn papa ji dégg na leen waaye ba mu xamee ne faatu dañuy dóor dafa toog jàpp njaamuram ndax mere gu mu woon faatu ak bëgg gu bëgg mag ji corrigé ko noonu faatu bi mu jooyee ba xolam sedd nag mu daal di jël ay quelques bagages am génn kër gi wéyal aw yoonam kenn gisatu ko ci noonu nag moor ak soxnaan soosu di Mariam ak kinne ñu wéyal seen nekkin ñaari fan ginnaaw xew-xew boobu doxoon ci diggante moor ak rakkam jooju di faatu ki nga xam ne nag mooy Kiné di matu nag jamono yi nga xamee ne ne moom kenn moo nekk ci kër gi maanaam moo nekk ci néegam boroom kër gaa ngi koy daw mere ko lool Marème di dox intervention ak jàmm seen diggante waaye moor nangu koo déglu ndax neexul nga sëy koo xam ne bëggoo ko boole ci itam mu def loolu ay jëf yoo xam ne dara neexu la ci ba ci liggéeyam bi nga xam ne daanaka yàqu na lépp nag mu jàpp ne du kenn ku dul ne ndax da doon laaj lu mu amul boole ci itam di ko jox ay dépenses yu cher maanaam di ko sas ay mbir yu cher mu koy jox lu mu ko laaj mu jox ko ko boole ci du nangoo dem liggéey ak yu baree bari yoo xam ne jot na ko dund ak moom ba gis na ne loolu moo ko indil gàllankoor bii yépp taxoon mu mere woon ko lool ki nga xam ne mooy Marème moom mooy dem ne di ko saytu di ko xool ndax jigéen la te toll na diggante comme nit ku baax la. moom xoolul li ko kinne def wala lu ko kinne wax fàtte ne lépp jàpp kinne comme ni mu jàppee jëmmam ci ba tax na nag bi kinne di matu mareem moo ñëw ànd ak moom yëbb ko hôpital taxaw ko ba mu am doom bi mu amee doom nag doom ji nekk góor mareem am kontant lool nag noonu itam kinne it am kontant lool waaye amuk jaaxle ndax li mu bëggoon dëgg-dëgg amee ko ni nga ko bëggee digganteem ak boroom këram daanaka yàqu na gis na ne daal bu amee jàmm bu mënee nekk ci kër gi ba heure bi daal mareem la loolu taxoon na mu desoon ci xolam ak xelam waaye mareem mujj nekk magam fu mu toll ci ko conseillé ak bi indiwaat xelam. noonu la ne di xoolee mareem di jooy rek ndeysaan di wax ci xelam naan cey soxna si kii de ba mu dee ba mu dee dund ba tey ba mu dee Kiné ba tey maanaam ba mu juddoo ba tey ci sama dund musuma gis ku mel ni moom ci mbaax ak dëggu ak jub kii dara newul ci moom li muy def lépp lu mu gëm la. ndeysaan daal di wax si xelam aka neexoon bi mu juddoo ma mel ma mel ni kii aka neexoon ñu yar ma def ci man jikko yu rafet ba ma mel ni soxna si laa kii de mësumaa gis ku baaxee ni moom loolu yëpp mu koy wax ci xelam bi ñu génnee hôpital nag lépp lu ca war moom Marème defoon na ko jëkkër ji bàyyee ko lépp ki nga xam ne mooy Kiné na comme ni ko waxee woon dafa ñàkk kilifa yaayam moo ngi dund waaye yaayam daanaka du jigéen ju am solo moom day la yàlla xam doy na doo mën a nettali lépp ci histoire bi waaye daal ñoom ñu ñàkk kilifa lañ seen baay dafa génn àdduna ñetti mag yu jigéen la am moom mooy seen caat waaye ñoom dañu ñàkk kilifa lool kenn liggantiwul kenn ci ñoom ku ne sa bopp ngay ligganti loolu nag taxoon na Kiné wéetul na lool ci wasinam bi ndax gisul kenn ci ay mbokkam ku ñëw taxawu ko ku dul Marème mi nga xam ne moom la nekkal ci kër gi Faatu itam bi mu yëgee ne Kiné am na doom dafa ñëw ci kër gi seet si ko am lool faatu moom fa mu duggoon tànkam teggiw ko bi mu ñëwee ci kër gi fekk na Marème toog di defaral kinne lu mu lekk waaye faalewul Marème da ko romb dugg ci biir daal di nuyu kinne waxtaan ak moom seet ko laaj ko ndax sonnul xool ko dem nuyu papaam waxtaan ak moom génnaat dem mais moom faatu dëgër boppam ak woowle gi mu woowle tax na kenn du ko jéem a conseil dañ koy bàyyi rek ndax mënoo ko wax lu mu def Fatou mënoo ko yedd ba mu dellu ginnaaw yor na jikkoy boppam waaye fa dem nag mooy kër ki nga xam ne mooy biraan mooy waayam jooju muy bëggantal mooy xaritu kinne boobu nga xam ne moom la ko kinne boole loon foofu lay dem féetewoo fa mel ni daal soxnaam la cey faatu moo ñàkk kilifa lool sax ci noonu nag lañu wéyalee seen nekkin ki nga xam ne mooy moor moom fasul woon ngénte xale bi li mu bëggoon daal mooy ñu tudd ko noonu rek waaye Marème moo ci taxaw jàpp ci ànd ak boroom këram di ko xelal ba borom kër gi nangu ñu tudd xale bi maanaam defal ko li nga xam ne mooy ngénte bi ko ngéntee ngir bëgg lu rafet borom kër gi nga xam ne mooy moor dafa jël xale bi tuddee ko baayam kon xale bi moo ngi tuddoon baay bàcc bàcc moomu mooy pàppaay ki nga xam ne mooy moor moom lañu tuddee xale bi paa bi bëggoon na ci lool Marème itam taxawoon na ba koñ bi ñi ko war a yëpp yëg yëpp yëgal na leen ko ngénte li amoon na ay nit nit ñi ñëwoon nañu borom kër gi reyoon na xar bu mag defoon nañu lu ñu war a def loo xam ne devoir la ci aada ñu koy def ci bu xale juddoo rawatina doomu taaw ki ne itam soloon nañ ko ay yére yu rafet mareem génne woon na ci xaalisam ak li nga xam ne mooy ay takkaayam ngir jàppalee ko kinne ci bis bi taxawu na ko comme sœur buy taxaw ku mu bokkal ndey ak baay maanaam sëram bu mu bokkal ndey ak baay ni mu ko waroon a taxawoo noonu la ko mareem taxawoo ci noonu bi xew bi jàllee ñu wéyal seen nekkin biñ demee nag ñetti weer mareem ëmb bi tàmbalee feeñ mu wax ko nag ni mu ko war a wax moom ñëpp béggoon nañ ci kontaanoon nañ ci. ndey itam kontaanoon na ci lool ndax moom ma nga ci kër ga nekk ak moom lu ñuy def mu ànd ci ak ñoom ndax moom ndey amul benn problème faatu moo ko daan yëbbaale ba tax na lu bëri daawu ci dugg dafay benn nopp boo xam ne loo wax rek mu ànd ci ak yow comme gisatul faatu nag noonu la wéyee di nekk ca kër ga. di ànd ak Mariam ak Kiné ñuy dund dund ko tey jàmm dellu si ci kër ga amuñu benn jafe-jafe Faatu léeg-léeg mu ñëw fa waaye bu ñëwee ci Kiné rek la yem ak papaam su paree dem wéyal aw yoonam du wax ak kenn ba léegi daal dafa ëmbal mer ki nga xam ne may Mariam waaye Mariam moom loolu yëngalu ko dérangé wu ko. ndax ba muy nekk ci kër gi am doole lool la ko mënalul woon dara rawate nag bi nga xamee ne dem na ba nekkatul ci kër gi amatu fi doole. noonu la ñu woyalee seen nekkin ñu jàppalante ki nga xam ne mooy Kiné moom borom kër gi joxatu ko bopp na mu ko ko joxe woon léeg-léeg sax mu soxla dara borom këram moor du ko nangoo jox ba ki nga xam ne mooy Marème moo koy génn ci bénéfice bi muy jaay daal di koy jox di ko jàppale xale bi itam Marème considéré ko comme doomam waaye nit moo doy waar moom Kiné mbañeelam ci ki nga xam ne mooy Marème dafa gën a yokk waaye du ko ko wan benn yoon daf koy nëbb ci xolam moom Kiné daal ëmb bii nga xam ne Marème ëmb na ko naqari woon na ko lool métti woon na ko lool ba fu mu witee rek day génn rongañ ba soñoon Marème du am doom benn yoon ci kër gi ndeysaan noonu lañu ñu seen nekkin ci diir bu yàgg bi Marème tollee ci war a am doom jamono yooyu Kiné nekkul ci kër gi dafa génn demoon yëbb doomam jooju nga xam ne moom mooy bàcc ngir xale bi dafa xawoon di am yaram buy tàng xam nga rek léeg-léeg li dal xale yi mu yóbbu ko hôpital waaye ca koñ ba Marème amoon na fa benn maire boo xam ne xaritam la woon maire boobu moom rek la Marème amoon xarit ca koñ ba donte ne waa koñ ba bëggoon nañ ko lool nag waaye day ah, ñàkk ko du ñàkk koo xam ne moom day mel ni rek sa jur la maire boobu mu ngi tuddoon maire Bousso maire Bousso nekkoon soxna su baax moom la Marème àndaloon hôpital mu yóbbu ko taxaw ko ba mu am doom. bi mu amee doom comme noonu rek ñu àndi ko ci kër gi paa bi am mbégte lool paa bi jour bi nga xamee ne Marème am na doom dafa jooy ndax daf ko ko yàgg ñaanal yéene ko lool boroom kër gi itam kontaan lool ki ne itam génn di siiñ di ree di kontaan te fekk li muy wane dara nekkul ci xolam am na safaan boo xam ne ëmb na ko ci xolam ñeel Marème bi ñu demee nag ab diir bu yàgg ginnaaw bu ñu ngéntee xale bi ba tudd ko moor daal di koy tuddee Saaliw saaliw nag moom mooy doomu mareem ki nga xam ne nag mooy bàcc moom mooy doomu ki nga xam ne mooy ne bàcc nag daanaka magee na ko at yu manqué tuuti ñoom ñaar magante nañ ki nga xam ne mooy bàcc mooy taaw bi saaliw topp ci ñaari at jàll na ñoom ñaari xale yi tàmbali nañoo màgg kenn ki am na ñaari at yu tegal keneen kii di saaliw am at ak lu tegal xale yi léegi seen màgg dafa gaaw ci noonu la ñu demee ab diir ba xale yi tàmbalee dëgër ki nga xam ne mooy bàcc moom tàmbali naa mën a dox waaye ki nga xam ne itam mooy saaliw moom dafa toll ci di jàng dox jamono yooyu nag Marème ma nga am jàmm lool ci kër gi am naataange ak xéewal gu rëy ci ñi nga xam ne ñooy waa kër gi mooy baa bi ak boroom këram ak ki nga xam ne itam mooy ndey ak itam soxna si di kinne ndax kinne moom ab sëyam dafa naqari woon loolu ndax boroom kër gi bëgg ko waaye ak nekkinam ci kër gi ba léegi ginnaaw yàlla mareem la waaye li ñuy wax rek jigéen moom soo nekkee moom bu yàggee wala góor itam boo nekkee moom bu yàggee nga miin ko même soo ko bëggul da koy miin loolu nag taxoon na ki nga xam ne mooy moor dal di accepté nekk ak Kiné ginnaaw conseil yu bëri yi nga xam ne Marème moo ko koy conseillé ba mu gëm loolu noonu nag la ñu seen sa nekkin Marème di jàppale Kiné ba Kiné xaj ci kër gi man faa nekk lu mu jëndal doomam ji nga xam ne mooy saaliw daf koy jëndal bàcc ñoom ñaar la yemale uuf leen def leen comme doom ji nga xam ne ñoom la jur ñoom ñaar daal la yemale kot ki nga xam ne mooy kinde moom dafay ree ci kaw di jooy ci suuf li muy wane ak li nekk ci moom du benn jamono bu nekk rek moo ngi wut pexe bu mu faagaagalee ki nga xam ne mooy mareem goro bi itam dafa bëgg mareem lool ba bëggaale doomam ji di saaliw waaye mareem dafay bañ goro bi di ko fësal day bëgg rek suy fo mu foo ak ñoom ñaar ñëpp bu jëndee dara itam mu boole ko ñoom ñaar ñëpp bàcc mi nga xam ne moo ci mag ak saaliw ndeysaan bi ñu demaatee ay at nag ba xale yi tàmbalee dëgër kenn ki am na juróom-ñaari at kenn ki am juróom at yu tegal juróomi at yu tegal ndeysaan noonu itam la ki nga xam ne mooy mareem benn bés mu génnoon ànd ak doomam ji di saaliw demoon seeti meer boobu nga xam ne mooy xaritam ca koñ ba di maire Bousso boobu mère bu soo dañ doon takk doomam marem demoon ca ba mu ñibbisee ci kër gi nag daldi sonn dugg ci néegam noonu la duggee ci duus bi ngir sangu waaye bi mu sangoo ci duus bi ba génn ay yuuxu la génn waale maanaam dafa génn di yuuxu jël sër bi wodd ko ci yaram bi jamono yooyu doom ji nga xam ne mooy saaliw tàmbali naa xàmmeeku moo ngi jooy ndeysaan naan yaay lu xew noonu jëkkër ji moor daw ñëw waa kër gi yépp ñëw Marème fi mu tëdd ci néegam moo ngi lox di kadd kaddee noonu waa kër gi yëpp jaaxle ki nga xam ne mooy kinne itam jaaxle lool moom itam ndax amut lan moo dal Marème waaye Marème foofu muy lox jékki-jékki rek wequ mel ni kuy sukuraat dal di sànni ay tànkam xulli ay bëtam sànni ay loxoom dal di faatu faatu bu gaaw sax mu nekkoon nag lu doy waar lool fii la ñu yemale épisode bi ñu jox leen dig daje épisode 6 bi ci lu yàggatul dara incha allah jërë ngeen jëf daw leen gaaw abonné ci seen plateforme seen production ndax nag dara du leen rëcc ci seen histoire ak film ak programme yu am solo ñu leen tàmm àndil jamono bu nekk seen production Islam ca kanam